مولاي One TV La lumière de la Tijania بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه أجمعين بوكي جلت إني سيطان نجلين دنو يوتيبات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجي توك في شندقلو مولانا سيد شيخ أحمد تيجاني سي المكتوم دي خليف جنرال دي تيجان شندقلو نجابوتي بوبم di sunu wayjur Mawlana Sayyid Abdul Aziz Al Amin ci ndigalu njaboti bopam Mawlana Serigne babakar si Mansour ci ndigalu njabotu bopam Mawlana Cheikh Al Hadj malik si Dabakh ak mbollem fami Cheikh Al Hadj malik si radiyallahu anhu su ngeen gisee jotaay bi fa tabaarakallahu ngeen xam ni am na lu ñuy dëgmal lu am solo. modi gamu ci turu commission bi nga xam ni moo nga luy service ci keur Maulana Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu anhu ñom ñoko yore diko taxawal mu am ca nag tabaarakallahu commission jeunesse ñu di len jox seen yobolu gamu motax tay jotaay bi ñu tan kenn ci keur gi ko xamni njabot la مقدم لا واي تام بوروم خام خام لا مودي السيد الحاج مسيل كان يفاسييني اندك موم تي والو يوبلو غامو حاج مسيل ولاف دافا واخني لو ييغو لا كا ييغال موكو اوب دوله جامانو يي ني تولو خيل ييب ميغي ديم تي ماغال غنك ادنا يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم fu ñu nee gàmmu xel yëpp dana dem ci Mawlana Cheikh Al Hadj Malick si radiallahu anhu ca Tiwaawan tabarakallahu yóbbalu jeunesse toog di la laaj tey lan mooy falsafa gàmmu gàmmu ci boppam lan moo ko tax a jóg lan moo tax fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiina boroom woote ko loolu lañ la bëgg a laaj su ko defee ñu déglu la ba xam loolu ñu ci indil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 tabarakallahu Cheikh Abdel Aziz ñu ngi lay fay nuyoo di la ziar di ñaan yal na yàlla dolli la tawfiq tabarakallahu ah noonu nga ko ubbee rek la lépp mi ngi tegu ci ndigalu kilifa yu tedd yooyu nga tudd mu Seyid Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum ak rakkam yu baax yi mu ko seqal Cheikh Abdel Aziz Al Amin Serigne Babacar Sy tabarakallahu Cheikh Alhaji Malick ak mbooleem al usra malikiya Eh, lépp ci seen diggal lay delluwaat yàlla dogal itam ni nga ko waxee lu yëngu rek li ko yëngal moo ëpp doole weer wi bu teroo rek ay képp ko aju Tiwaawan a ah, ku mën a yëngu rek ko aju Tiwaawan dina ca bokk ndax yàlla ak màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, Seydi Hadji radiallahu taala anhu ah mel ni nag moo ko jëkk a loolu moo taxit may faral di wax ni képp ku gàmmo di nga am yiwu rëy waaye dafa mel ni dina tax ñu dolli ay privilège si daaji bi nga xam ni moo ko jëkka rëdd ndax mu dellu ci lu yonent bi wax ni man sanna sunnatan hasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha képp koo xam ne xàll nga aw yoon yoon wa yoon wu baax ku ca jaarati am baax di nga ci am wàll te du wàññi ci wàllam dara yaa dogal it muy li nga laaj ni lan mooy gàmmo bu dee duñuy wax rek pirim baat bi mag ñu bari tanzim la ñuy wax muy baatu arab ñu di ko firee ci wolof màggal magal gan magal kan moo juddu yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam Malik dafa wax ni limuy sonu sonu ci jëf ak jàngaleeg lepp jëlul yaakaaram pour terangam ëlëk mu aj ko ca loola mi ngi ko aj ci magal ak jël boppam wammatu ni yonent bi yow la walaysa li amalun alqaaka ya amali ya amali si wal mahabbati wa taazimi wa salami nee na awma jenn jëf ak lu mu rëy rëy ak lu ñu ko naw naw ci fànn bu mu mën a doon yaakaaruma ko pour ma am ca dara ëllëg li ma gën a yaakaar daal mooy màggal yonent bii ak ni ko yawa mooy wammatu topp ci ginnaawam ci lépp loolu nag ñaar yooyu ci la tënk gàmmo su boobaa gàmmo dafay nekk école bu mag a mag a mag a mag a mag boo xam ni orientation bi mu bëgg ci njabootam ci la koy defe parce que daan na wax ni mag mu amul lu dul génn dëgg di ko wax ci génn guddi di ko wax cim at bu soñoon koy njabootam fekke ko kon am na lu mu bëgg a wax xam nga ni itam Seydi Malick ci straté stratégie bu xereñ jàngale daf ko mas a tànn waaye bu daan jàngale charia taamoo na di ko defee ci jàkka la ko waral mooy jàkk ñëpp fay daje di julli si kon mën nañ fa jàngale sharia ku bëgg a jariñu jariñu waaye doglu na tool boo xam ni dina ko permettre comme njabootam ñooy daje ca toolam bu ñu ja bu ñu liggéeyee ba wàcc mu jàngal leen fàttali leen li mu leen jàngal ci sharia mais mu jàngal leen tariqa parce que loolu mbiru biir néeg la loolu nag bu amee ba ñamu jàngal la ñu jàng mokk mu tasaare leen ci àddina bi ndax fii ci biir réew mi fenn fu ci nekk am na représentant bu fa nekk boo xam ne la mu la jàngal yaa ngi ko fay duññi ba ci bitim réew laaj na nag at mu nekk ñoom ñëpp mu woo leen ñu dajawaat ci benn uh, bërëb nafaraat mu dolli leen a orienté bala ñuy dugal ci mbir yi lu ci bokkul ndax jox sa njaboot orientation bàyyi ko mu dem définitivement te wul nga nga chambar lang ko joxon ndax raxu ca lenn wala det lolo la ci bañ motax bu gamu diké mu dajale ñep mais nak dina leen avertir ni leen nak na ngeen ko magal waye nak na ngeen def très attention ci duggal ci lo xamni ni euh baxul wa bu leen ko ci duggal mu dee beuyit ba ala azimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwa alxaraami udulu ñëw leen ñëw leen ñëw leen neey waaye nag na ngeen def très attention ba bu leen ci dugal loo xam ni da ngeen da ngeen di jàngaloo jëme ci loo xam ne yàlla def ko tere moo tax toujours dinaa ciy dolli ni kuy dem Tiwaawan na nga yor sas mbidon def ci ndox bula la njàpp euh, bu la njàpp të donte di nga ko fa fekk na nga wut sa sijaada bu ndaw lem ko bokk na nga yor sa kurus gi nga xam ne ci ngay mottalee yemu la santoon waaye dem Tiwaawan ba ñëw dellu si sa dëkk di fay bori julli boko defé lim la doon avertir ci walu ida lam yakun al haram udulu da nga dal dug ci cadre bobu kon Seydi malik tabarakallahu gam gogu orienté nit ñi gën leena a yar nafar lo leen sen allo yi nga xamni ne la leen ko yebal leen ci ay gox bok na ci li tax mu wote gamam ci Cheikh Abdel Aziz ci ci première question ñu ngi yemandi fofu tabarakallahu xaaj kon su ma déggee sa wax damay jàpp ni kon gàmmu séminaire de formation la boo xam ni Maulana Cheikh Al Hadj radiallahu anhu en tant que directeur conscience su ñi mu yilif at par at mu dajale leen jox leen leçon ñu dem dund ko déwoon ñu ñëwaat mu xoolaat lan la leen di yokkalaat di leen ko jox shay an fa shay an wa xaalan fa xaalan fa tabaarakallah ahsanul xaaliqiina xaaj ma silla am naa lu ma daaneel ci cheikh alxaaji malik si radiallahu anhu mooy dama gis ni Maodo taalibe la ci tariqa Mawlana Qutbul Aarifin Abul Abbasi Ahmadu Tijani radiallahu anhu gis ni itam amul sago ci sëriñam waaw ilaahi bi Qutbil Aarifina imaamina رجائي وغوصي للإله وسيلتي ختامي نظام للولاية جملة به أرتجي الغفران من كل ذلة مودو بوتو دي سيدنا شيخ رضي الله عنه مدانو دمنا بني مدون جوية نيك تيم يننتي صلى الله عليه وسلم نون لدون دون جوية نيك تيم سرينيم وكم أشتكي عند الإله ذيارة zawaayahu lakin al inaana bi qabdati wax na sax lu gën a yéeme wax na ni dawaa i ala daa i ziyaaratu rawdihi wa in lam anal faddaau fi zeydi wal adli nee dal te li ma ko yóbbee mooy ñàkk tiim sama rawdu sëriñ mottali sama yéene loolu bu amul bu leen xalaat ni jàngoro bi dana wér waaye day gën yokku mais li ma jaaxal mooy lu tax gàmmu mawda dafa jóg rek ci bidayam jëli yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek ñëw tegal ka njabotam jël guddeem ak bëccëgam ak lépp xirtal leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan la jublu ci lolu te mu am serignu tariqa mu jege ko waye mu dem jëli sallallahu alayhi wa sallam ñëw tek lolu ban hikma ngañ ci indi. jërëjëf Cheikh Abdoul Aziz tabarakallah siraj Malik ko xarañ la ko am fula la. Seydi Hadji Malick Cheikh Tidiane Chérif du raayaam wasilaam la Seydi Hadji Cheikh taxu koo jóg dafa am fu mu jëm gi Cheikh yor waruwaay di ko conduite te mu wóor ko ni kii conduite yaakaaruñu ni dina def catastrophe dina def accident ci yoon wi mu jël waruwaay woowu yéeg ci pour Cheikh conduire ko pour wan ko fi mu jëm dëgg fi ko tax a jóg muy yàlla ci boppam ak yonent bi comme wan nañ ni ko nag yàllaa ngi nii yonent baa ngi nii bu jógee mën naa jawal te wax na ko ci mbindam nee na maalil wali wasilatu fi dunya wa axiratin si wàlla di saada man yem di wa man yati am na ñu wax ni comme dafa wax ni awma benn wasila ci àdduna ak àllaaxira lu dul ki nga xam ne mooy sangum ñi jëkk ak ñi mujj am na ñu ne yonente bi ci jublu ni moom la def wasilaam directement am na ñu ni cheikh la cheikh ko tax di wax waaye lu mu ci mën a doon cheikh nekkul woon raayaam wasilaam la woon boo xam ne dafay ànd ak moom ngir fa mu bëgg a àgg mu àgg fa moo tax wax na ci ay waxi wala fam yu am solo yi mu daan wax nee na Cheikh Tidiane Chérif kat danoo bokk atelier ma moom waaye bu roy jotee ca maamam laa jëm hmm? nee na dañu bokk atelier mais bu jotee ca maamam laa jëm pour wan la nit li nga xam ne moo ko taxoon a jóg ak ñi ko taxoon a jóg nekk ñu nekk ay nawleem tudd na leen ñooñu la bëggoon a teg loxo te xam na ni bu yootoo loxoom su tuuti si du leen jot mu seet ko gën a gudd loxo mu lonk ci moom muy cheikh moo tax wax na ni alxulafaalu arbaa muy abou bakrin sadiq omar ousmane ali mu ni du nee nañu ñoo gannaaw yonent bi ñoo gën ñu ne waaw mu ni fas naa yéene bu ëllëgee fu ñu teg seen tànk dinaa ko fa teg parce que juddu mayu leen ko sant mayu leen ko yittee leen ko may loola la soxlaa woon cheikh nag ndax loola amaana bu amul woon cheikh du ma man du àgg ci boobu niveau looloo tax bi mu demee ba àgg ci dimension bi mu àgg ba mu wóor ko nii fi ñëpp jaar ba samp seen tarixa bopp mën na faa àgg mën na mën na samp tarixa pour pour ni ko ñëpp defee waaye gannaaw bi am na privilège yoo xam ne xam na ni cheikh rek moo ko yor mu ne xaaral ma ànd ak kii parce que sinon su ma beroo yi tamit lee moom lañ ko jagleel moom rekk ko yor te lee laa gën a xemme ma ànd ak moom benn yoon loolu moo tax mu jóg jawal ci yonent bi waaye nag li dëgëral ndëggoom ba mu mën a àgg fi mu àgg mi ngi ko jaare ci cheikh cheikh nekk wasilaam waaye nekkul xaayaam tabaarakallahu kon daal li muy firi moo di la mu waxoon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu yàlla royloo mu dem ci yonent bi ñu yàlla royloo direct fa tabaarakallahu xaaj masila am na sew-sew bu nekk ci Maodo ni mu fexe ba yar njabootam ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais lima ma jaaxal mooy daf leen fexe ba soppaloo leen ko d'abord cofeel googu mu jiital ci njabootam defe naa ni cofeel googu moo tungoom tey seen lépp ñu roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ban xikma la Maodo jëfandikoo ba bi muy def loolu ci réew mi tubaab yi yaa ngi fi ceddo yaa ngi fi lu nekk ngi fi luy gàllankoor waaye mu fexe ba réussir royloo njabootam sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye def loo leen ko ci biir ëttu sëriñam Maulana Sayid Cheikh Ahmadou Tijani radiallahu anhu ni mu fexe ba réussir loolu ci njabootam te booba ceddo yaa ngi fi tubaab yaa ngi fi ban ban ban méthode la jëfandikoo ba réussir loolu. jërëjëf Cheikh Abdoul euh, li ma la wax ci njëlbéenu wax ni ko amoon stratégie la. ku mënoon def maslaxa la boo xam ne maslaxa bi du ko jural ñu maasale ko du ko du ko jural ñu dëgg masalaam ndax euh, ñi mu fi nekkaloon tey nga xam ne ay nooni diine la ñu woon mu nekk ak ñoom daan na jëflanteeg moom ci ñoom ci yenn côté waaye côté yi nga xam ne nii nag bu jëflanteeg ñoom mën na gàllankoor diineem wala cofeelam ci yonent bi am lu ci xajam boobu da cee sévéroon demoon na ba limu mu li muy wax tubaab yi xam nañ ni lii ndax lu mu masaan bind di ko di ko jàngale tubaab bi dinañu fexe ba jël taxi yi dem di ko firilu ci ñi nga xam ne dégg nañu arab ba xam lu muy tekki mais terewul li ci gën a yéeme mooy dimbalul sunu borom bi mu am ba di dal ci seen kaw di leen wax lu mel ni xeme ak di ñaan yàlla ci ñoom pour mu toroxal leen ak di ñaan yàlla mu musal ko ci ñoom ñu xam ne loolu lay wax te lu mu soxla suba ba ca ngoon ñu taxaw ci kooku de jagle sunu borom la. ay naa ay naa yam la bu ko yàlla defal hmm? ci boo xoolee ci xasida bële nga xam ne moom la ñuy tëjee wazifa yi ak wirdi yi ala ya rasulallahi ya afdalal wara fa nahnu fi diqin shadidi tarakumi ba ca audu bi audu billahi min sharril kuffaari wa min sharril nasara ñu muy wax mooy ñi mu fi nekkaloon ñu ay tubaab audu billahi min sharril kuffaari wa min sharril nasara wa min sharril salatini wa min wazirin wa jinnin ذو مسيح حقد فم وعين وعين وشياطين وظالم ومنافق وذي حسن ومن تفسق ñi muy wax man tafasaqa yaa rahman najjini ñooñu la ci jublu te terewul min an nasara wa man qafaw tariqahum yallaahu yaa xayu yaa man qala ad'uni ñooñu nga xam ne moo taxoon mi di ko wax ñu nekk ak ñoom ñooñu mooy ku la ñaan si fi nekkoon te terewul li ñuy xam-xam li muy wax terewul lu mu soxla suba ba ci ngoon ñu ngi ci waxoon na it ci wàllu xereñam googu bu ñu ma masaan di ñëw di soxla ay soldaar ndax loolu dafa xewoon danaan wax ni dinaa leen jox samay doom ndax jiitu naa leen ci ñoom ba pare ndax si jiitu boo dee yarkat jiitu ci sa njaboot rek mooy safarat buñ ma laajee Babacar ma jox leen ko parce que jiitu naa leen ci moom buñ ma laajee Sid Ahmed ma jox leen ko parce que jiitu naa leen ci moom wóor na ma ni mënatu ñoo def ci ñoom lenn waaye nag doomu jàmbur yi nga xam ne dañoo bàyyi seen kër ndey ak seen kër baay topp ma am na lu dox sama diggante ñoom loolu laay sàmm moo tax du ma joxe ñooñu ci biir loolu ci la nekk ci seen biir di maslax ak ñoom maslax boo xam du dëgg masala tey tamit du du ko jural ñu maasale ko ba li mu réussir mu réussir ko ak it gëm leen leen wax leen dëgg ndax dafa dafa dëgmal dëgg wan ginnaaw neen fen te dëgg lu bu la yëkkatee bu la dëgg bu la daaneelee it dina la mas a yëkkati te néew na lu dëgg di daaneel nit fenit bu la yëkkatee dina la mas a daaneel te néew na fen néew na lu fen di yëkkati nit mu tegu ci dëgg rek dëgg gu leer nañ te waxoon na ko sëñ Babacar si ni ko nag Babacar mu ni ko Labayka mu ni ko nekkal ci dëgg ku ñëw na la ci fekk ku dem na la ci bàyyi dafa mel ni loolu mooy nekk làmpam bi mu niitee li mu niit ba réussir li mu réussir te wax na ko nee na as sidqu wax wa zinatul muridi mooy taaru taaliba dëgg dëgg dëgg aadana allahu min al maridi yeneen yàlla musal ci féttéeru ni léng di làmbtu tañax tañax rek di wéy kon Siraaji malik tabarakallah nonu la def def jëflanteeg ñom ci comme heure bi bari wul yenn detail yi buñ ci duggé ak xekaayaat yi day gëna jël temps waye ci walu stratégie bobu dal ak maslaha bobu nga xamni deggul masalam masalaam masale wuñu ko ci la réussir li mu réussir si Abdou Aziz. xaaj masil si la jërëjëf kon suma déggé sa wax euh damay nangu hikma Maulana Cheikh Al Hadj Malick si radiyallahu anhu ndax missionnaire bu ne amna lu la yalla defal. mais am na loo xam ne nag yaa koy defal sa bopp moom la wolof di wax ni wundu wune ak tojunu bopp jana xam te li ñuy xaar ci missionnaire mooy résultat yu positif kon moom fa tabaarakallaahu xikmaam ak siyaasaam la jëfandikoo ci biir lëndëm lëndëm ci doye ak tuba bi ba yar njabotam ba limu mu bëggoon ci ñom mu am ko te yàqaluñu ko liggéeyam fa tabaarakallaahu xaj ma la mu ñëwaat ci leneen mawdo boko tuddé tuddu xam-xam man Cheikh Alhaaji Malick radiyallaahu anhu moy jëmmi xam-xam euh limu def ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam demal ci khilasu zahab fi sirati khair al arab dafa wóolu li mu def ba ya yaa al bahri lil asdaf indi ya asdaf biha durratun ala min al jalami yow momu sobu di wuti xam-xam waxuma xam-xamu kese waaye xam-xam jawhari xam-xam dëgg-dëgg wàññeekul ñëw ma jox la ci lu gën li ngay wuti loo xam ni doo ko fekk fenn te loolu ku ne xam na ni am na ko mais lu tax mu wëlbatiku dem jëli burdatul madiixi jox ko njabootam ñu koy barkeeloo ci gàmmu te ku ne xam na li nekk ci miimi ya fa tabaaraka allah sanal xaalim doo ko fekk ci benn téere bu borom xam-xam bu bind ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu laa bëgg sew-sew boobu nga ñëw ceeg man jërëjëf Cheikh Abdoul Aziz Siraj Malick ku ne xam na ni weex na tàll leer na naññi su wootee ba nit ñi daw ñëw bu jëlul ay garde fu boo moytuwul ci moom la ñuy yem te loola la ci doon bañ effacement total la Siraj Malick jëfandikoo ci ay ay ay ay jëflenteem moo tax alxaji xaan Ngom bu paal wax na nee na bi may door a jot ci Seydi Hadji Malick di ànd ak moom ci njëlbeenu ànd gi nee na jamono jooja bu ma noon yàlla ma gëm ko may bu ma noon man mii maay yàlla ma gëm ko mais nee na bi mu paree ci man su ma noon maay yàlla rek ma bàyyi ko dem sama yoon fi mu rawee nag sëriñ su baree bari moo di mooy étape bu njëkk bi fi la sëriñ ak seen i na bi muy door ci man bu ma noon yoway yàlla dinaa ko gëm mais bu mu pare bi mu paree ci man su ma noon yoway yàlla rek ma bàyyi ko état boobu nag moom franchir na ko ba dem ci ñaareelu état bi ñu baree bare ci état bu jëkk bi ci la ñu yem mais loolu moo ko moo ko dimbali parce que euh, entre parenthèses Seydi Malick du yàlla du yonent rangu yonent yi sax bokku ca rangu saxaaba yi sax bokku ca waaye nitu yàlla yu mag yi ca la bokk loolu nag la bëgg ay taalu yam xamee ko noonu gëmee ko noonu moo tax li mu yor lu mu foor foor foor foor foor day jéem a seet lu mu ko gam-gam leen loo xam ni sam baax na loola baax na pour mu effacer ko bopp mu jëlee loola te imaamul Busiri mi nga xam ni tey moom la jël xasidaam daf ko sopp ndax dafa am lu ñu xaw a niroo ñoom ñaar amit lu ñu xaw bokk waaye tamit ci biir loolu lu ñu xaw a niroole moo di Sidaaji Malik dafa juddu ci famille boo xam ne amuñu ay moyens imaamul Busiri turam dëgg mi ngi tudd Mouhamadou ibnu Saïd Mouhamad al euh, ibnu Hamad al Busayri Busayri gi sax parce que euh, yaayam mu ngi dëkk euh, euh, askan la parce que moom égyptien la yaay ji mi ngi dëkk Dallas baay bi dëkk Busayri léegi nag xam nga baay comme moo dominé moo tax ñu dekkantal ko rek benn yoon ci baay bi di wax Busayri waaye ci famille bu néew doole la nekkoon yore woon daara di jàngale parce que imaam Busayri daara alquran yii nu yore daara yooyu la yore woon di jàngale yàlla dogal itam bokk na ci li mu ko soppe mooy borom xam-xam yi bari na lool te woy nañu mais moom kii mu tànn muy imaamul Busiri gëm na tarixa mu tasawif la bokkul ak moom tarixa nag pour wal na ni Seydi Hadji Malick ku ku ku ku ama am solo la koo xam ni par parparloo du ko def bu doon parparloo bu fekkee ni imaamul Busiri gëm na tarixa te bokkul ak moom tarixa du ko du du du jël ci moom dara ndax imaamul Busiri itam sëriñam Abul Abbas la tudd al al almarsi ah moo njëkkan premier xalif imaamu Chazali ci tarixatu Chazali yàlla bokk waaye terewul comme xam na ni gëm na tarixa ñoo bokk tool parce que ñoom ñu ngi défendre tasawuf booleeg li mu bind wax ko ci yonent bi parce que Serigne Cheikh nee na euh, burdu euh, kii euh, imaam Buseyri xamul nu mu def ba bind ko nee na daf daf koo tànd waaw te li mu ca gis ba wax loolu mooy li Seydi Hadji Malick gis moo tax mu jël ko ak itam bagn rek njabot gi ñiy sànq gëmloo leen ni mom boppam a ko tax di woote parce que bi muy wax ni Seydina mohammed khulafaaw mi ñoo gën ci khulafaaw yi gannaaw yonent bi ñoo gën bu ëllëgé fu ñu tek seen tank dina ko fa tek ndax yittee leen ko may sant mayu leen ko juddu mayu leen ko xam nga wax ni fu ñu tek seen tank dina wax ni bu ëllëgé fu leen nit ñi tek dinañ ma fa tek mais kon wax ji du du bokk signification daf ni bu ëllëgé fu ñu tek seen tank dinaa ko fa teg boo waxoon ne boo ëllëgee fu leen nit ñi teg dinañ ma fa teg danañ xam ni kii dara daa ko tax a moo tax lépp loo xam ne war na mën a tax nit ki jël ko teg ko ci place yu yonent bi wala ñu jox ko cëru yàlla fexe na ba loolu yëpp faxas na ko ba njabootam yëpp mu orienté leen jëme leen ci borom bi tabaraka wa taala jëme leen ci sopp yonent bi mu dëggal li yàlla wax ne uddu ila sabili rabbika bil rabbika bil xikmati wal mawizati xasana wa jaadilhum billati hiya ahsan kon tabaarakallaahu Seydi Hadji Malick ci gàttal loolu moo tax mu doxale noonu bàyyi fi li mu bind waaw li mu bind ku ne xam na ne sell na ndax mimi wax nañ ni guddi gu nekk bu bindee ba tëdd guddi yonent bi dina comme ni ngay defee boo jàng ci école indi sa brouillon wan ko sa mu xool ko corriger la mimi bi wax nañ ni guddi gu nekk bu tëddee yonent bi dina ko feeñu liñ ci war a corriger mu corriger ko te loolu yonent bi defal na ko ay nit defal na ko imaamul busiri mii wa mablaul ilmi annahu basharun yem fa tëdd ba guddi mu ni ko wa annahu xayru xalqillaahi kullihim yi waaw dëgg-dëgg xam-xam daal xam naa ni moom gaa nit la mbindeef la mu ne ko nag waaw waaye nag moo gën ci mbindeef yi kon gàggante nañ ko foofu sédaaji Maalik itam gàgganteem li ko tax a neex mooy guddi gu nekk bu tëddee yonent bi feeñu ko gàggante ko ci miim yi xam nga loolu sell na leer na waaye nag bu jëlee lu nekk rek ràcc taf ci kanamam nit ñi dañuy mujj bàyyi yàlla bàyyi yonent bi topp ko moo tax mu daal di écarté wu parce que Busayri moom comme ma nga ci réewu arab ya daanaka nag dagge fi billet dem ci réewu arab di toppi nit ba ñàkk yàlla du leen ko jaral te moom bu fi nekkee bu melee noonu bu nee fang boo muytuwul nit ñi dinañ daal di daw ndax Tiwaawan gi soriwul da ngay dagg paas fii ñaar téeméer rek daal di dem fekk ko fa waaye fexe na ba ñag boppam ba boo dikkee tamit yàlla la lay woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga baal ma Abdou Aziz ci gi. xaaj eh, ma sil la jërëjëf. kon gis naa ni daal ku yaatu dënn la woon te Serigne Cheikh dafa wax ni ku àgg ci yàlla yaatu waaye ku àgg ci seytaane xat mu am itam leneen lu ma daaneel ci Cheikh Al Hadj Malick Sy man damay daanu xaal ci moom te mooy dama gis ni ku daan moytundikuloo njabootam ci far par par loola yaa ngi jéggi bi mu naan tafadulu turuqin wal jidaalu xadiisuhum كما نمت دتسا كما قال ذروق جذاه مجيب من زمان بكى من قبله كبراؤنا جنيد كذا الجيل فحق نحيب وقد فرقوا دين النبي شفعنا موي موي تندي كلو نجابوتم تجور فرفر لو مانام لين رك لا ام موي لي باخ لواي ام لينن باخول لو بوكول ليما ام dafay feeñ ci mbindam di feeñ ci ay kàddoom loolu euh, lan moo taxoon muy moytandikuloo njabootam farfarloo ak ku nekk rek di raj taf sa kanam keneen koo bokkalul rek nga diingat ko sikk ko lan moo taxoon muy moytandikuloo njabootam loolu jërëjëf Cheikh Abdel Aziz teg tànkam ci sunna rek ak di bàyyi xel lu yonent bi wax comme jeexal na alquran càmbar côté yëpp sunna yonent bi jeexal na ko xadis yonent bi wax na ci xam na li yonent bi wax te yonent bi nee na sa minna man daa ila asabiya képp koo xam ne ak loo mën a daj ak loo sonn-sonn bu dee yaa ngi wootee di dox jëm ci parparloo bokkoo ci nun moo tax am na ñetti kilifa yoo xam ni ci kilifay tarixe yi lañu bokk comme moom sëriñ Cheikh nee na kenn ku ci nekk la nga ragaloon moo tas sa kër am na ci kilifa goo xam ni la ragaloon mooy alxawtu fil maqadir mooy xuus ci dogale yàlla yi di ca àtt mel ni yaa moom nee na loola dem na ba moo gëndaloo ci biir këram moom la ñuy fooye moom la ñuy kafe nee na am na ci kilifa yi it ñoo goo xam ne la mu gënoon a ragal mooy sa yuur feesul ba pare nga dëkkee wax dëkk micro dëkk ci sa loxo waaw nee moom it loolu la ko yàlla nattoo mooy ña gën a ñàkk xam-xam ca ca ca ñoom ñoo gën a dàq wax moom Seydi Malick moom li mu gënoon a ragal mooy parparlo nee na parparloo bi tamit yàlla natt na ko ci parce que tey ji amaana bu dul woon taasub ba ak ko ba ñu def coalition yi ñu war a def ba takku ba taxaw nee na bu boobaa dinañ ci réussir lu bëree bëri waaye ba tey échec guñu waaw parce que tabaarakallaa ku tegu ci yoon te wàcce rek amaana di nga àgg fi nga jëm tabaarakallaa sunu xaaliqiina kon mbokk yi ñu seetaan ci seen yóbbalu gàmmu euh, euh, ñu ngi sant bu baax tabaarakallaa xaaj ma silla kan ci tontu yu leer yi mu tontu فتبارك الله ديكو نيانال يالا يان يالا يوك خام خامم يان يالا يوك ليرو دنم سين كوميسيون كوسكاس تبارك الله سورتو كوميسيون جينيس بيغا خامني فتبارك الله نيوم نيو دوخال اكتيفيتي يي نيوم نيو لين تانلون تاي سين يوبلو غامو اندكو تبارك الله سونو استاذ سونو ماك الحاج مسيل كان نيغي لين دي نيانال يالا سبحانه وتعالى لب لو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ام تي لير تي بركه yàlla diko seddelé ci goudi gàmmu fa tabarakallahu képp kuy julit yalla la ci yàlla séddalu kawe sa yéné ak sa ñort ñu ngi leen di baalu àq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Diva One TV, la lumière de la Tijania.